mbokk yi maa ngi leen di nuyu nga xam ne bokkuñu Pastef te ñëw fii représenté ay parti politique yu wuteeg représenté ay mouvement citoyen yu mu teg Pastef seen teewaay sedd guy ci suñu biir xol seen teewaay sedd guy ci suñu biir xol ñu ngi leen di gërëm di leen di sant mbokk yi ñu ngi leen di masawu coono cette salle fait 700 places mais on peut facilement dire qu'à l'heure actuelle elle fait minimum plus de personnes qui sont actuellement dans cette salle Cela ne signifie qu'une seule chose. On peut emprisonner Ousmane Sonko, mais on ne peut pas vaincre Ousmane Sonko. On peut, emprisonner détenus politiques, membres de PASTEF, sympathisants de PASTEF, qui veulent élire Sonko cinquième président, mais on ne peut pas les vaincre.

Le président Macky a dit il y a peut-être de 24 ou moins de 48 je cite, si nous perdons le pouvoir, ça sera catastrophique. Eh bien, a que lui, le président Macky qui ne sait pas encore qu'il a déjà perdu le pouvoir. Il n'y a que lui, Macky Sall, l'APR qui ne savent pas encore que Ousmane Sonko est déjà cinquième président Sénégal. j'ai dit à, mon collègue et camarade à l'une salle que je n'aimerais pas être long parce que je pense à, tous ceux qui sont derrière et qui sont debout depuis deux heures de temps. Je ne veux pas être long. Je souhaite qu'on le plus vite possible afin d'abréger les douleurs qui sont les vôtres en restant debout pendant 3 heures de temps, 4 heures de heures de temps. Cela montre la diaspora est déterminée. La diaspora française est déterminée. Et bravo à vous. Félicitations à vous. Et nous allons rester déterminés jusqu'au mois de février en amenant Ousmane Sonko au palais présidentiel. Je ne vais pas être long, mais je suis sûr que ce matin, comme tous les matins, beaucoup euh, parmi vous, en prenant le petit déjeuner, ici en France, ont dû voir la même chose que ce que j'ai vu moi ce matin en prenant mon petit déjeuner. Eh je prenais mon petit déjeuner ce matin. Il y avait un emballage qui emballait le pain. Et sur cet emballage, il était écrit Mon pain raconte toutes les saveurs de nos terroirs. Mon pain, c'est un pain français. Mon pain raconte toutes les saveurs de nos terroirs. Eh est-ce un crime pour nous, peuple sénégalais, de vouloir que nos pains racontent toutes les saveurs du Sénégal de Russie, du blé d'Ukraine ou du blé de je ne sais où, est-ce que c'est un crime que de vouloir que nos pays aient le saveur de nos terroirs, de nos villages C'est ça le projet de Pasteur, c'est ça le projet de Ousmane Sonko. Et ce n'est pas une haine de l'autre, c'est vouloir tout simplement sortir notre peuple du sous-développement, sortir notre peuple de la pauvreté, sortir notre peuple de la dépendance. mbokk yi yàggul torop ci ginnaaw boobu France mu ngi amoon 66 millions d'habitants mu ngi amoon 18 million ci nag 18 millions yi mu nag France ci 66 millions d'habitants boobu jamono ñun Sénégal ñu ngi tolloon ci 14 millions d'habitants ñu ngi amoon ci ñetti millions nag. France moo ñu doon dundal meew te bu ngeen jëlee seen machine à calculer ngeen xool proportionnellement 18 millions de nag pour 66 millions d'habitants nga méngale ko ak 14 millions de citoyens sénégalais ak 3 millions nag ñun ñoo leen ëppale nag waaye France moo ñuy dundal ci meew ndax loolu yoon la ñun ñoo war a dundal France ci meew et pas l'inverse jamono yooyu 42 pour cent de meew bu doon dugg Sénégal mu ngi bàyyeekoo France kon xam ngeen lan moo tax France ne pat France ne tekk jamono ji nga xam ne ñu ngi mbugal président Ousmane Sonko jamono ji nga xam ne ñu ngi mbugal de détenus politiques jamono ji nga xam ne y a des de blessés à vie handicapés à vie jamono ji nga xam ne am na ay doomu Sénégal yoo xam ne dañoo réer ne mëy sénégalais aux 3 millions de bovins et non de lier les citoyens sénégalais aux 18 millions de bovins français. Un éleveur français, un éleveur français, c'est 6 emplois, 6 à 7 emplois au moins, du vétérinaire au chauffeur. Un éleveur français, c'est 6 à 7 emplois au moins. Et donc, tant que la France continuera à nous alimenter en lait, tant que le Danemark continuera à nous alimenter en lait, Nous n'aurons pas d'entreprise, nous n'aurons pas suffisamment d'éleveurs ou des éleveurs suffisamment forts pour qu'ils puissent créer au Sénégal, chaque éleveur sénégalais, 6 à 7 emplois. Et donc, yoon la mu am ay junni ak ay junni doomu Sénégal ak Méditerranée ñuy océan Atlantique ñu leen fii ci bi Tour Eiffel politique yii le Pastef ne dafa war a jeex le président Ousmane Sonko ne dafa war a jeex et donc comme ñun Afrique comme Sénégal dañ ñuy noot l'impérialisme n'a pas intérêt à ce que le consommateur sénégalais soit lié aux 3 millions de bovins sénégalais l'impérialisme a intérêt que les citoyens sénégalais soient liés aux 18 millions de vaches françaises lii mooy wax ji voilà en fait pourquoi il y a eu un deal il entre Macky la France les États-Unis l'Union européenne etc le deal c'est Macky Sall, tu ne seras pas le troisième mandat, mais on te laisse avec Ousmane Sonko, on te laisse avec Pastef. Tout ce que tu feras, on se taira. Voilà pourquoi les médias internationaux ne sont intéressés que par notre plan B et non par les violations, les arbitraires, les actes démocratiques. qui n'appelle lui le blanc ne peut pas avoir plus de droits que Ousmane Sonko le noir. Sinon, c'est du racisme. Sinon, ce sont des droits de l'homme à géométrie variable. Quand on condamne Alexis Navalny, ils crient tous des cris de jeunes puceaux. Et quand on condamne arbitrairement Ousmane Sonko, qu'on le prive arbitrairement de tous ses droits, quand on assassine près de 100 Sénégalais, quand on emprisonne près de Sénégalais, ils se taisent tous. Abba ce type, Abba ce type, Abba ce type, Abba ce type, Abba ce type, Abba ce type. Mais lii ñuy wax nii nous ne le disons pas pour pleurnicher. Nous ne le disons pas pour pleurnicher. Nous ne le disons pas pour le dire que si vous ne nous soutenez pas, que si vous ne parlez pas, nous ne vaincrons pas. Nous le disons pour élever la conscience des nôtres, pour qu'ils comprennent que c'est ça l'impérialisme. Ils se tait quand il y a un coup d'État au Tchad, mais ils pleurnichent quand il y a un coup d'État au Niger, parce qu'ils risquent perdre l'uranium. Nous, peuple sénégalais, nous n'avons pas attendu et nous n'attendrons ni la France, ni les États-Unis, ni l'ONU pour libérer notre pays, pour libérer notre continent. Aujourd'hui, Macky Sall n'est pas candidat une troisième fois de manière illégale et de manière illégitime. C'est grâce à vous, Pastef. C'est grâce à vous, Pastef. Sonko. C'est grâce aux militants et aux sympathisants de Pastef. C'est grâce à Ousmane Sonko. Voilà pourquoi le président Macky Sall est vindicatif et rancunier. Et il veut nous faire payer cette troisième candidature qu'il lui a filé des doigts. mais je le répète moom rek moo xamul ne APR jeex na Benno Bokk Yaakaar jeex na moom rek moo xamul ne cinquième président mu ngi tudd Ousmane Sonko incha allah. mbokk yi mbokk yi torop xam naa fokk ñu actualiser suñuy chiffres waaye yàggul torop yàggul torop benn kilo ginaaru Sénégal bu génn ci ngunu Sénégal maanaam poulailler Sénégal minimum mille cinq cent jëm mille sept cent jamono jooju le même kilo de ginaar bi nga xam ne mu ngi bàyyeekoo Hollande bu génnee ci poulailler bi mu ngi jar quatre cent dix jamono jooju le même kilo de poula euh, de volaille qui sort du poulailler brésilien mu ngi jar trois cent cinquante jamono jooju trois États-Unis jamono jooju mu ngi jar cinq cent vingt France. waa léegi tubaab yi ne dañoo bëgg ñun suñu ay ginaar mille sept le kilo bu si poulailler de la ferme. mu compétir ak ñoom seen ginaar 354 francs 500 francs euh, mais 400 francs ak ñoom seen loolu mënul nekk mënul nekk te fekk loolu mu ngi continuer fekk loolu mu ngi continuer du ñu mun am ay xëy ak gont yu doy du ñu mun am ay emploi yu doy pour jox ndaw yi xëy yu doy moo tax loo ci gis ñoom ñëpp ñu ngi jël géej gi ñoom ñëpp ñu ngi jël le désert du Sahara loolu moo tax jamono jii bu ngeen jëlee États-Unis bu ngeen jëlee Brésil ak ñoom seen ñu ngi porter plainte organisation mondiale du commerce contre le Sénégal pour ñu ubbi suñu frontière pour ñoom seen ginaar seen cuisse de poulet mun dugg Sénégal lii moo mandargaal Pastef lii moo mandargaal Ousmane Sonko moo tax moo tax ñoom États-Unis ñoom France réew yi nga xam ne Union européenne yi nga xam ne ñooy noot réewu Afrique yi di noot Sénégal bëgguñu nooteel bi jóge fii bëgguñu jatan bi jóge fii bëgguñu buumu jaam bi jóge fii moo tax ñoom ñëpp ñu ne pat moo tax ñoom ñëpp ñu ne teg waaye ñun mun nañ jooyal suñu gëju bopp ñun mun nañ régler suñu bopp jafe-jafe bi te dinañ ko régler te régler nañ ko ba noppi li ma siy teg rek mooy dama koy saral di wax ñoom dañoo jàpp le bon africain est l'africain à genoux le bon africain est l'africain qui leur donne son pétrole son gaz son zircon son phosphate ses ressources halieutiques son or son uranium le président Ousmane Sonko a dit non. Je donnerai à mon peuple notre pétrole, notre gaz, notre phosphate, notre zircon. moo tax waaw suñu candidat mooy candidat bu gën bi Ousmane Sonko est le meilleur candidat aujourd'hui au Sénégal et Ousmane Sonko sera élu

war li ñu war mooy ñu denc bu baax suñu ay carte électeur li ñu war mooy bés bu jotee ñu dem jëli suñu ay carte électeur li ñu war mooy ñu wax suñu ay mbokk fii ak Sénégal mbir mi Sonko la mi Pastef li ñu war mooy ñu defar mobilisation bi ñu gën a dëgëral taxawaay bi li ñu war mooy ñu gën a yaatal xol yi li ñu war mooy ñu gën a nekk benn def benn say ànd li ñu war mooy ñu gën a joxe suñu dërëm ak suñu fistim te xeebuñu dara li ñu war mooy ñu participer à l'effort de guerre li ñu war mooy ñu dajale loolu yëpp ngir benn mbir rek ngir focus rek ngir focus rek ñu war et nous attendons beaucoup de la diaspora et c'est l'occasion de dire que nous sommes fiers de la diaspora sénégalaise nous sommes fiers de nos frères et sœurs qui sont ici nous sommes fiers de nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se libérer aujourd'hui la seule réponse à donner au président Macky qui a élaboré une liste mu liste déposé ko aéroport Blaise Diagne bu Dakar benn tontu rek lañ ko war a tontu xaalis bu ñu waroon jël pour dem Sénégal nañ ko dugal ci nañ ko ci xare bi nañ ko dugal ci kanam nous avons qu'une seule réponse benn tontu rek lañ ko war a def mooy tere nga ñu ñu gàmmu tere nga ñu ñu màggal waaye incha allah février di fi jógee te dinañ wàcc Sénégal ndaxte Ousmane mooy doon fii. prévoit de financer la campagne électorale du, du candidat Ousmane Sonko. Donc waaw 100 millions le PASTEF France bëgg mobiliser man taxawaay bii ma gis détermination bii ma gis li ma gis Champs-Élysées li ma gis Lille li ma dégg Bordeaux li ma dégg Mulhouse li ma gis Rouen li ma dégg fu nekk ci France vous fier de vous. Ousmane Sonko a raison de vous aimer. Ousmane Sonko a raison et courageux ndax lii ku ko am doo ragal lii ku ko am doo ragal lii Benno Bokk Yaakaar Sonko fait peur aux impérialistes moo tax foo dem ñu naan la waxal plan B ngir yàlla waxal plan B ngir mu am démobilisation. de ne pas achever la paix, de ne pas achever Benno Bokiyaka. Nous n'avons pas le droit de nous reposer. Nous n'avons plus le droit d'être fatigués. Voilà que nous taillons, voilà que nous calmons, voilà que nous sommes. Quand c'est la plus président Ousmane Sonko en février 2024.